bokk na ci activité sociale yi Madakaw def ci diiran bi ñu nekk ci coalition benn bokk yaakaar boo demee ci prison bu Mbàkke Bawol bee tey Madakaw dem na fekk ay néeg yu fa nekk amuñu ay télé Madakaw jël ay télé def ko ci biir néeg yi renforcer ko ba tey bu ñu tëddee am lu leen di wéttali Madakaw jël néeg yi manqué ay ventilateur renforcer ko ba bu ñu tëddee ci tàngoor yi am lu ñu mën a wéttali ko ba mu xaw a féex Madakaw jël ay madla jël ay setala jox leen ko ngir jàppale leen ko ndax ñoom kat ci askan wi la ñu bokk ndax li ñuy def ci social par mois di ko def par année kenn xamut ni mu tollu boo demee ci sport ngir animé departement euh, de Mbacké am na lu ñu wax open national taekwondo moom mooy lëkkale xale yi def taekwondo Madakaw moo ko mas di organiser ci Mbacké te organiser nañ ko cinq fois ci diiran yu nekk ci coalition benn Bokk Yaakaar mooy dajale ñi def taekwondo ci département bi mooy dajale ñi def taekwondo ci Sénégal ñëpp mu mel ne secteur boo dem ci wàllu développement. tey nag dañu jëm ci ay élections muy élection locale élection yi nag dañu bëgg askanu département de Mbacké xam ne suñu élection la ñun waa département bi ñoo ko moom bu ñu xaar kenn di dikk di ñu tànnal ak nit koo xam ne xamuñu fu mu bawoo ngir ñu koy jàppale te loolu di nekk enjeu ci suñu bopp. tey nag Serigne fàllu Mbacké mii fi nekk tey nga xam ne mooy président conseil départemental di doom ci Serigne Mbacké Soxna loo defe naa ne bu ñu xoolee ci candidat yi nekk ci département bi gisuñu candidat bu ko fi gën. bu fekkente ne socialement gisuñu ko ci bu dee développement gisuñu ko ci bu fekkee ci xam-xam gisuñu ko ci te ñun waa Madakaw dañu engagé woon l'état sëñ Fallou duñu ñëw ne ñun de candidat bi ñu jàppale mooy candidat bi ñu gis ne moo gën ci département de Mbacké président Macky Sall nag mënuñu wax ci Serigne fàllu wax ci élection yi te duñu laal ci moom li ci jiitu boo demee ci département bu mel ne Matam waa nga dem ci département bu mel ne Fatick boo jëlee seen électorat bépp nga jël électorat Daaru Xuddoos mën na ko wat di ko yóbbu te tey boo demee nga jël budget Matam jël budget Fatick moo ëpp budget département de Mbacké te président Macky salli mi ko def jubluwu ci dara lu dul xeex Serigne fàllu Mbacké waaye jublu ci dara lu dul xeex département de Mbacké man nag li may wax danaa ko wax ci mu leer naññ parce que ñun du ñu tàgg nit ki tey suba ñu xalab ko kenn xamewuñu loolu ndax bi ñu ñëw di ànd ak moom dañu ànd ak moom te ku tàppee mouvement Madakaw ci internet bi di nga ko gis en 2016 sama déclaration li ma waxoon mooy dinañ jàppale président Macky Sall ngir intérêt département de Mbacké lii la ñu waxoon proposition bu nekk nag defaloon nañu ko diggoon nañu ay passeport diplomate laajuñu ko diggoon nañu ay oto laajuñu ko diggoon nañu par ñuy jox lu nekk laajuñu ko lañ leen waxoon mooy nañ fexe ba département de Mbacké jiitu ci département yi ci Sénégal engagement boobu ma Madakaw jëloon nag ba taxoon mu ñëw ànd ak son excellence président Macky Sall gis nañ ne président Macky Sall nekku ca engagement boobu wala bu ca nekkoon ma nga cey dellu gannaaw ndax bi mu séddale PUDSM bi ëllëg mu dugal pay euh, département de Mbacké ci PUDC phase 1 ko tegg jël ko dugal ko ci PUDC phase te defe ne boo dee séddale ay infrastructure ci Sénégal boo nee Dakar la nga war a njëkk a wax mooy ne département de Mbacké mooy département bi ci war a topp parce que boo dee xool ci sa budget bu nekkoon exemple ci 1000 milliards département de Mbacké 400 milliards yi fii nga koy jëlee kon nag infrastructure yi nga xam ne moom la président Macky Sall di def fii bu doon ne amu fi benn voie daf ko fi war a def ndax dakaar bu amoon tey 5 hôpital normalement Touba war na mën am 3 hôpital wala 4 kon tey bu ñu ko xoolee ci wàllu économique di xool ci li nga xam ne politiquement président Macky Sall waroon na ko delloo tey population bu département bi waratuñu ko jàppale parce que Korok bi mu amee problème son excellence Ablaye Wade 2007 ba mu jaaxlee xalaatul fenn fu di bi mu ñëwee Serigne El Hadj Baara moo ko fat boole ko ak njabootam. en 2012 Touba ñoo jël seen responsabilité man mii di wax Ablaye Wade dama wax ci gimmuñu boppam loolu bakkan lay laaj korog bi ma déggee résultat département de Mbacké yi ci laa félicité président Macky Sall xam ne ñàkk naa ndax sama yaakaar yëpp foofu laa ko tegoon yamuñu ta Serigne Gallas Koltoom ñëw jël élection législative yi teg ko ci loxoom waaye ba mu yoree bigam bi di signé bu doon te ne jox na département bi ay ministre portefeuille danañ xam a wax mais président Macky Sall depuis 2018 ba léegi màggal siwu Touba di fa recevoir benn om politique amut benn reconnaissance boo xamante ne si am na ko ci njabootu politique am dégg naa dem na ba yegg ca sax day wax ne Touba moom man sëñ baa ma fa dese loolu nag ba ko Madakaaw xamee xam na ñun de ci njabootu sëriñ bi lañ waaye politiquement Madakaaw day xool ki gën ci département bi ki gën ci réew mi ñu ànd ak moom Serigne fàllu Mbacke mii nag nga xam ne tey moom mooy président conseil départemental ñu jël ko tabb ko ci liste bii ñuy wax Yewwi Askan Wi yéen jigéen ñi Madakaaw yéen la ñuy wax ci ànd bi ngeen ànd ak Madakaw ak waa mouvement Madakaw gépp bis naka tey ji mouvement Madakaw laa xam ndax du fàllu Diop sëriñ bi 45 membre comité directeur moo nekk ci Madakaw bi ñu renouvelé suñu bureau léegi matu 3 mois amul benn frustration ci membre Madakaw yi amul ñëpp jël nañ seen décision ne danañ jàppale Serigne fàllu Mbacké mii ci élection locale yi nga xamante ne si ne moom la ñu jëm ñun waa mouvement Madakaw te nag ñu ngi ci woo ñëpp ñu xam ne élection yi nag jàppale ji du ay wax ndax mënoon nañ ko wax yemale ko ci ab saal comme ni ko son frère Ousmane waxee woon léegi waaye bi ñu dugg si ci coalition Benno Bokk Yaakaar dañ ko fësaloon ba ñëpp di ko gis tey nag bu ñu ñëw di ànd ak Serigne Fallou Mbacke mii danañ ko teg li ndax Cheikh Abdoul Ahad mu baax ma suñu jàmbaar ja moo ne woon ku defal lu ñëpp gis ma sant la bañ la dégg Serigne Fallou Mbacke mii démb la woon ak bërki démb ci digganteem ak Madakaw ñëw na suñu journée don de 100 2020 yëkkati enveloppe bu am solo jox ñu ko waaye yemu ca di sëtub Serigne Touba dana kenn du ma ci ëppale ca fay ëllëg dama yëkkati sama dara joxe ko te yàlla tax jëf jooja waroon naa doy sëkk ci ne bu soxlaa tey mouvement Madaka war na ko mën a fekk si jàppale ko rawatina nag bi ñu xoolee ne gis na mooy candidat bi gën ci département bi. di am mbégte ci déclaration bi am solo bi nga xam ne Serigne Fallou Diop président de Madaka def na ko mooy ñi mu àndal ak moom euh, ñu jël bëgg ànd ak ñun ci coalition Yewwi Askan bi loolu muy lu rafet euh, luñ doon xaar ci moom ndax lu bare bari nañ ko bokk ci gis-gis kon bu jëlee décision jëlee décision boobu ñu ànd ak ñun dañ koy saluer bu baax di ko tàllal loxo di ko feeñal suñu engagement ci wete moom ak suñu mbégte di ko feeñal tamit képp kuy membre. nekk ci Madakaw la ci njëkk nag mooy euh, rafetlu bu baax seen taxawaay taxawaay bu am solo bi ñu def en tant que association mu jëm ci lépp luy développer département bi rawatina fii ci gox bi tubaa ku ne ku ne mën naa témoigner bi nga xam ne Madakaw def na ko ci département bi ñu bilan bu am solo wàllum social wàllu maanaam wér-gu-yaram ci wàllu sport ci wàllu jeunesse foo lim rek Madakaw def na fa bilan bu am solo wala dëkk bépp am fu ñu leen teg loolu nag chance la pour ñun euh, en tant que coalition yi Yewwi Askan bi bu ñu amee ku mën ne Madakaw ci suñu wet jàpp naa ne suñu xel mën naa dal suñu yaakaar aussi mën naa dolleeku ci ngir poids bi nga xam ne waa Madakaw am nañ ko ci dëkk bi Yewwi Askan bi ay parti yi ak i mouvement bari ñoo composé am na ñuy bari yu nekk ci bi am na ñu fi nekkut mais ñu ñu xam ñu nekk ci département bi bari na euh, mën nañ cee ràññee PASTEF ànd soxla Sénégal bi ma jiite en tant que mouvement euh, parti Aïda Mbodj mi ngi ci mi ngi ci man mouvement bi fii ci département bi. ci biir biir man coalition bi PUR mi ngi ci coalition bi. Déthié euh, Fall. mi ci coalition bi euh, le parti de Boubacar Camara mi ngi ci coalition bi jëngu mi ngi ci maanaam coalition bi taxaw Sénégal bu Khalifa Sall mi ngi ci coalition bi moom euh, lu am solo la la xam naa euh, danañ ci ràññee yu bare bare ci réalisation ak infrastructure ci wàllu njàng mi ci wàllu santé temps bi du ñu permettre ñu lim lépp te incha danañ am yenn occasion yoo xam ne ni danañ toog a bi ñu échange bu baax ci bilan boobu ak maanaam ak programme bi ñu bëgg a teg pour cinq ans yi war a ñëw pour conseil départemental incha allah loolu ay fan yu néew rek da ngeen gis programme boobu ak bilan boobu ak ambition yi nga xam ne euh, tënk nañ ko ci ay documents pour pour euh, département bi loolu incha allah.